maa ngi toog ak euh, Alioune Mané mu jëm ci événement bu mag combat bu mag mu nekk combat boo xamante ne combat bu am am solo la ci carrière mu war ko bëri ki nga xamante ne moom mooy euh, Soundiata Alioune Mané maa ngi siyaar. waaw maa ngi lay siyaar moom Cheikh. naka état forme bi. waaw sant yàlla bu baax rek. fan nga toll fan nga tollu waaw fi mbër yi dul toll rek. muy entraîner récupérer lekk sant yàlla. nga jógee ci kéwél. mu nekk combat boo xamante ne combat bu ñu la doon xaar la nga ñëw yàlla def safaan nga jëlaat xale bu ñuy wax Soundiata sa waay ñeme nga coono de. waaw xam nga tey dañ ne góor yàlla waaw góor ba teg si yàlla ndax tey yàlla mu ñu sàq suñu suñu borom moo sàq daf ñu ay góor yàlla tey bu ñu demee bay ragal rek wala bay bay dem bay xaddi rek kon nekkatuñu ay ay ay ay jullit daal maanaam. Soundiata bu bu bu arbitre sifflé day ñëw de. man est-ce que est-ce que man mën naa bëre combat bu yomb sama carrière mais booy bi dafa tegle dafa nekk ci dynamique bu extraordinaire teg la ay victoire nekk ci yoon est-ce que neex naa neex naa stoppé. waaw sant yàlla rek xam nga tey mooy li may wax rek man mënuma yàlla suñu borom rek moo am suñu borom rek moo mun mais maa ngi ñaan yàlla suñu borom may man ndam ma jël victoire am téye ko sama loxo. nga doon mbër boo xamante ne daan nga daan nga mobiliser daan feesal stade est-ce que tey say supporters lan nga leen war a wax ba ñu gëmaat la daal di toppaat sa ginnaaw. loo xamul nag te laa lay leeral loo xamul nag man musuma am ay supporters yoo xam dañuy weddi man ay bañkat rek laa yor barki yonent bi. kon combat bi yow yaa ci gën a fas yéene mobiliser sa waay. si kàttanu suñu borom. man sama combat bi passé promoteur bu may bu ma tëggoon boo ko woowee daf ma jox lu bëri ma dawal loolu yëpp. mais tey xam nga Soundiata bu baax lan mooy fooram tey boo ko doon xool qualité Soundiata yi tey. non nice cool. cool. xam nga fi nga ay aw. non loolu waxu waxuma ay waxu fu ma am de da laaj fu fu ma ko fa laa koy jaar wala fu ma ko fu ma ko xamee. cool laa ko xamee kuul mais maanaam booy bi jaaxalu la. non non. ay bagages am jaaxalu la. non non xam nga la moo tax jaaxalu ma. doomu aadama la doomu aadama laa. non ci qualité bëreem laay wax. non non déggoo waxee yow man dama bëri ay champion Papa Sow deuxième combat laa ko daan daan Bruce daan Kayra 2 daan Mansour Diop assurance mbuur dama bëri ay combat nag dama bëri ay dama bëri ay mbër mais xam nga tey lu may la faral wax jafe-jafe yàlla suñu borom moo koy teg mbër mais nekkul mbër mooy teg boppam jafe-jafe ndax te képp ku nekk rek. tey victoire ngay ñaan ndax tey benn mbër di jël combat tamit bañee bañ a entraîné wala tey naan ay damay dem ñu daan ma non bépp mbër bu jël combat rek victoire ngay ñaan te maa ngi koy ñaan si barki yonent bi ma am ndam si kaw Soundiata loolu laay gëm te dama koy am si kàttanu suñu borom. alors lan ngay tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi lay seetaan lan ngay tàggatoo lan ngay wootee ñan ngay woo. xam man tey li may faral di waxaat rek damay sant bu baax a a baax sëñ Sidi Alxuraan Mbàkke man kook assurance laa koy wax ndax Mbacke Balaye sax maa ngi koy sant bu baax a baax du ko gërëm kon kooku moo ma defar su ma ñemee di taxawaat tele di wax di am fugu sëñ si moo tax ndax dama fekk si ay guddi yéeme su ma papa gaañu su ma yaay gaañu mu téye ma defal ma doomam moo may jox paas màggal tuubaa li may wax tele laa koy waxee te moom mooy seetaan. barki yonent bi moo may jox passe aller retour te damay dem daaru salaam te nii nii nii sax su ma xefoon léegi damay jaar foofu dem siyaar ko léegi léegi incha allah si kàttanu suñu borom mais dafa guddi Mbacke maa ngi lay siyaar bu baax a baax gis naa yéene bi gis naa cofel bi Pikine maa ngi leen lancé benn affaire nag dama doon lebale nag mais dama bëgg ñu fay si ma nag quoi Eumeu Sène Eumeu Sène Ama Baldé Ama Baldé Jetli soq ngeer l'an 2000 bàcc seeraas ñëpp dama doon noonu lebal seen bis mais damaa xewle damaa am combat combat bu ma bëgg combat bu ma respecté ndax su ñetta nekkul combat bi nii rek de plus de deux ans mu ngi nekk sama kaw si dafa ma bëgg dafa dafa bëgg a man nag si ah am na wala amul doy na waar doy na deux ans dafa bëgg a bëre man mais maanaam est-ce que amul fu mu la jaar. xam nga tey mooy lu may faral mooy lu ma lay waxal rek làmb la moom lu ko war rek lay si lay nekk man si li ma war si laa nekk mooy entraîner gëm boppam respecter boppam man si entraînement gëm sama bopp respecter sama bopp laa di sant waa ginnaaw raay Pikine ñëpp di sant sëñ sëñ Fallou Fall su ma sëriñ daf may ñaanal waaw man kon li may faral wax rek lëy ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax a baax ndax tey li yombul. tey nga def sa première journée tëgg Soundiata yàlla suñu borom may ko ndam tey nga amaat beneen adversaire rek jox ko Aliou Mané waaw xamal tey Aliou Mané nag li ma la wax sànq rek man dama nekk mbër boo xam damay mobiliser man dama damay dundal làmb man làmb dama koy jox akam dama koy jaay loolu laa ko wax léegi man ko sa làmb man barki yonent bi dama koy jaay ba nga xam ne jaay naa ko lu mu laaj si combat dama koy def waaw lii première partie la fekk la sa salle dinaa ñëw def ak yow ay feesu feesu gërëm suma adversaire nag tamit quoi Soundiata bu baax a baax a baax a baax a baax baax ndax tey mënoon na tey nekk tamit xam na tey xala la mënoon na nekk si yoonam tamit xool ñeneen waaye wax wax baaxul à suivre ci Ba merci beaucoup Soundiata maa ngi maa ngi lay bëgg Cheikh Omar garaaw sa combat bi euh, ni mu taxawee sa diggante ki nga xamante ne moom mooy Alioune Mané lan nga yëg non comme li ma daan yëg rek waaw combat la rek comme combat yi jàll rek loolu kay yow dara lu ma ji yëg comme rek suñu jot Alioune Mané nga jël da nga naan ma combat la comme combat yi. combat rek comme combat bi passé comme combat bi jàll nii. Hmm. combat comme combat boobu. combat bi xawul diis tuuti ci yow. billaay diisul. bu jour baa da nga xam ne diisul. fan nga ko teg ba nga ne diisul. maa ko mën fuuf falaa ko teg gën ko pare. Alioune diis na gis nga combat bi mu bëri kéwél mu metti lool ci kéwél. waaw baax na. moo kéwél métti na loolu. waaye man du ma kéwél Sunjata Sunjata ngay waxal nii du kéwél de c'est moi Sunjata. mais Sunjata est-ce que du du du fu mu toll nii da nga parce que da nga ci ay dynamique de victoire nga bëgg a xeeb ki nga ki nga am. xeebuma ko de mais dama xam sama bopp. xam ne man du Aliou Mané mii moo may téye. xam naa ne moo mag ci làmb te am na expérience te am na doole xam naa ko waaye man it je sais qui je suis. xam naa sama bopp. say supporters di la seetaan yàlla def ni nga nekk ci euh, dynamique de victoire ngay mobiliser di ñëw combat bi nga ne mu nekk combat boo xamante ne mën na laa jàllale lan leen di wax. li ma leen di wax mooy ñoom ñëpp nañ mobiliser wu dañ gën a mobiliser wu parce que bi combat bu ma respecté la comme combat la comme yeneen combat yi respecté naa ko mais bëgg naa ñoom ñëpp ñu mobiliser wu ñëw toog ci kaw. mais xam nga ni combat bi fu mu la fu mu la war a yóbbu. combat bi est-ce xam nga fu mu la war a yóbbu. waaw man xam naa fu mu war a yóbbu moo bu ma ko daanee ñeneen ñenn ñeneen ñu taxaw te incha allah dama koy daan xooli leneen. est-ce que du risque sax jël Alioune Mané dynamique de victoire nga nekk Alioune Mané dellu si est-ce que du risque. non du risque man xaw ma gisuma ci benn risque de. la gëj a lancé la boo xamante moom moom mer la fanaanoo maa ngi koy xaar ak meram mu ñëwee ma ma boolewaat ko ak meram mu dem fanaanoowaat ak moom suñata suñata yow fan nga teg ni yow yaa mën Alioune fan nga ko teg du ma moroomam mais koo bëreegul laaleegoo leen nga bëgg a wax ni a ba égréda moroomam fu ma ko jàpp fu ma ko ne tëddal fa lay tëdd te Pikine laa koy fekk su ma ko ne tëddal fa lay tëdd te dinaa ko fekk Pikine fu ma ko jëmee fa la jëm. mais lim ay champion yoo xamante ne ñooñu ñëpp bu ñu ko daree sax waaye loolu est-ce man bëriwuma ak champion yooyu man sax sa man man sama jëm bopp man ñooñu laa visé du moom mii. yow nga ne li jëntiwoo Aliou Mané. billaay wallaay taalaahi man xama bopp laa xam. Aliou Mané yii muy def nii. ay wax di xumbal yi. non Alioune Mané tàngal na fi de. dama dëgg ma tàngal na fi yooyu day sóob rek fii la bëri barki démb kéwél mënu ko def dara ñu may yii yii mis nañ ko ci affaire mbër yi. mais nee na nee na dafa nekkoon ci tolof tolof te defaru na dellu si waat na. fii la ne kéwél mënu ko xaw ma ñett 25 minutes deful kele kenn daanul ñu def seen machine yi yooyu noonu yooyu dama kii bu ma ko jàppee bu ma ko nee tëral fii fa lay tër wala te xoolal dina bëre dina xeex de dinaa ko duma. mi ngi wax ay waxu kasaw kasaw yi. da nga ko duma naa ko duma naa ko daan bu yóbboo mu waaj bu baax te te te pigil laa koy fekk. waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo ba ba ba beneen lan ngay wax promoteur bi lan ngay wax waa ak lu làmb ñan ngay tà ñan ngay gërëm ñan ngay sant. Lé Ndiaye dañ koy gërëm di ko sant muy promoteur bi parce que nee nañ ko yokkul yaa wàññi. Hmm. di sant waa jàmm gan ñëpp nag. di sant sama gars yi ñoom Abou Niasse ak ñoom Abdou Seck ak yëpp. waa tableau xaadim yi waa euh, gétt ga di woo ñëpp comme moom woon ay Eumeu Sène man am naa Siteu am naa Feu Rouge am naa trompeur am naa nees am naa fëgala maa ngi leen di wow di sant sama lépp njool di sant waa bus ko Sow yëpp ak Paate ak demb ñëpp maa ngi leen di sant di wax ñëpp nañ ñëw jàpp ñu préparé kombaa bi ak mbéy gay fay sama doomu ndey ñu préparé combat bi yàlla may ñu ndam